سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورضي الله عن قطب المكتوم تاج العارفين ممد كل عول يا الرحمن أبي العباسي مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسني التجاني الفاطمي رضي الله تعالى عنه وعلى جميع خلفائه ومقدمه رضوان الله تعالى عليهم جميعا أيها المشاهدون الكرام نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقجلدي بقي ني توب دي ني في سيني تلفزيون او تي في غيناو بني سانتي يالا جولتي صلى الله عليه وسلم di ñaan ngërëmal yàlla ak yërmandeem yàlla nekk ci suñu sëriñ Cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak mbooleem xalifaam ak muqaddam ak soppem yépp ñu ngi nuyu mbokk yépp ci baatu assalaamu aleykum wa ta taala wa ngi leen di di len baalu xaq leen baal xaq di ñaan yàlla mi nga xamante ne moom moom moom njëggal yàlla nañu yàlla boole jéggal suñuy ñaawteef yépp suñuy rëcc-rëcc yu ñu yëg ak yu ñu yëgul mu ndaw mu bari yépp yàlla na ko yàlla dugal ci géeju yërmandeem ñaan yàlla itam yàlla nañ yàlla fajal suñuy aaju yi nga xamante ne moom yu ñu yëg ak yu ñu yëgul yëpp yu ñu xam ak yu ñu xamul yàlla nañ ci yàlla defal taysiir mm, di ziar mbokk yëpp ci bés bi di ñaan yàlla lépp lu xamante ne jaamu nañ ko fi yàlla yàlla na ko yàlla nangu euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci bés bi itam ci ay azkar yëpp yàlla na ko yàlla nangu bi jaahi rasulillah di nuyu suñu directeur général xaaji Papa Sadio ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey bi yëpp di caméraman yi ak techniciens yi ak preneur de son yi ñoom ñëpp waa si ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xéewal yi yàlla defal ñu lu kawe suñu njot suñu liggéey bi jaahi rasulillah ci barke alquran di nuyu suñu mboolem asatis yi nga xamante ne. ñoom ñoo nekk ci kër gi euh, di si jiital alxaaji euh, asmalik fay di ko nuyu bu baax di ko ziyaar di ziar xaaj Maodo ña ni ki noonu itam di ziar sañ xaadim xaadim ngom jëwriñ ñu ngi koy ziar bu baax ak oustaz Madunam ak mboolem oustaz yi nga xamante ne ñoo nekk fii yëpp ziar nañu leen ñoom ñëpp du ngi leen di wàccee seen wàccuwaay di rafetlu itam bu baakha baakha baakha baax a baax seen jëf ak seen liggéey bi nga xamantene mission bi nga xamantene borom bi subhanahu wa taala moko jaarale won ci seen yonent di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñuy taxawé mission bobu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne fal yuballighi shahidu al ghaib kep ko xamantene tay fekke na bi limu don wax kiko fekke na jotal kiko ko fekkeewul mission bobu ci lañu nek bobu boobu ba léegi yàlla na leen ci yàlla taxawu ñu ngi dellu ci si kàttanu yàlla ci suñu émission tafsiru alquran di jéem a firi lenn ci baatu yàlla yi kàddoom yi yi nga xamante ne wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jotal ko xeetam bi di ko jéem a firi lenn ci suñu li ñu yàlla se cëre ci ñu mën ko firi ñu ngi jéem a waxtaane ci kàttanu yàlla ci suuratu nasri saar bi yoobu la ñu war a waxtaane war a firi tey ñu gën ko xam ci suuratu ida jaa nasrullahi inchaa allahu taala ci kattanu yàlla ak mën moom lañ jéem a waxtaane naka fekkoon ne borom bi subhaanahu wa taala dafa dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi victoire bu rëy ci victoire yonent bi sallallahu alayhi wa la yàlla may muhammad jaarale ko ci saar bii di suratul nasri boo koy xool suratul nasri mooy saaru ndimbal an nasru mooy ndimbal bi nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala dimbali na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fatxu makka bi nga xamante ne am na ci lépp saar bi incha allah dinañ ko waxtaane bu ñu ko waxtu bi mayee saar bi ñu ngi koy wax suratul nasri madaniyatun saar bi madina la bobu yaron sallallahu alaihi wasallam mu ngi madina fukki at yi mu def madina neena ci saar bi fofu la wacc watu samma dinañ ko tuddé mom saar bi suurata tawdii danañ ko wax saaru taggo saaru taggo mom lañ dañ ko tuddé lima fiha min ad dilalati ala tawdi'id dunia ndax boo xoolee saar bi daf lay wan ne yonente bi sallallahu mu ngi taggu adduna bii mu ngi koy taggu di wuyu ji boroomam kon moo tax ñu tuddee ko suratu tawdiu wattafaqa alsahabatu ala anna hadihi surata dallat ala na'yi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na sahaaba yëpp ñoom ñëpp ni ñu toll dëppoo nañu ànd nañu daje dëggal ne saar bii di suratul nasri dallat dafay tegtale ala na'i rasulillahi dafa ñëw ngir tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa saar bi saaru tàgge la comme ni ñu koy defee ci jàkka ji rek bu amee ko fa ku wàññeeku ñëw njabootu kaar njabootu diw njabootu diw ñu ngi tàgge diw kon saar bi mu ñëwee dafa ñëw pour tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mission ci àdduna jeex na kon bu mission am mission am jeexee ci àdduna la budda il faut que mu génn aduna dem wuyu ji boroomam saaba yëpp dëppoo nañ ni sar bi saar taggo la fa ñëw gi tagge yonent sallallahu alayhi wasallam wa dalika li wujuhin li lay won ne sar bi dafa ñëw pour tàggu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko da ngay génn aduna minha bokk na ci annahum ñom sahaba ya'rafu arafu xam nañ ne saar bi dafa ñëw pour tàggu yonente bi xiina xataba bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na di xutba wa qaala mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam inna abdan xayyarahu llahu taala bayna dunya wa bayna liqaa'ihi yonente bi sallallahu fu mu taxaw di xutba mu ne yéen mbokk yi xam leen ni am na benn jaam boo xamante ne borom bi tànnaloo na ko tànnaloo na ko na tànn mu tànn aduna wala mu tànn alaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ngay gis ñu tànnloo ko ne ko bu la neexee nga toog ba saa yu la neexee nga doog a dee wala bu la neexee léegi léegi ñu jël sa bakkan loolu yonent bi sallallahu wa sallam rek moo ko am ku dul yonent bi amoo loolu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante wax nañ ko loolu moom yonent sallallahu wa sallam faxtaara liqaa allahi mu tànn dem wuyu ji boroom subhanahu wa bàyyi àdduna ndax bi ñu ko laajee bi ko bi ñu ko laajee bi ko malakul mootu laajee ne ko sa boroom nee na naa ñëw jël sa ruu léegi walla bu la neexee ma bàyyi la ba saa yu la neexee ma doo ko jël sa ruu mu ne waaw malakul mawt ndax ba ma fi bàyyee ma tund cent ans walla deux deux cents ans ndax mo dundé ba lolu dama fi dund rek éternellement duma dé wala ko mo dundé ko dédé donte na dund nga 300 ans itam il faut que nga wuyu sa borom ne kon nak amul sens tok bi may toog fii amul sens kon ko damay dé légui te fi ak 300 ans itam damay dé kon na bayil ma dem légui rek day sama borom kon lolu tegtal la sar bi dafa ñow pour tàgg yonent sallallahu alayhi wasallam bi yonent bi waxé ne inna abdan khayyarahu allah bayna dunya wa bayna liqaayihi faxtaara liqaa allahi yonente bi mu waxee loolu fa qaala abubakarin seydna abubakarin ne ko fadaynaaka bi anfusina wa amwalina wa abaina wa awlaadina yow muhammad automatiquement bi yonente bi waxee loolu rek seydna abubakar comprendre na wax ji dégg na wax ji abubakar tontu ko ne ko fadaynaaka bi anfusina njotee nañ la yow muhammad ci suñu bakken bàyyil ñun ñu dee yow nga dund ndax sa dund moo ëpp njëriñ suñu dund wa am waali naa baa ñu jël suñu alal yi nga xamante ne amoon nañ ko ñu amoon yëpp ñu njotale ko yow muhammad sallallahu alayhi wa nga desandi fi ñun ñu dee wala suñu alal yi jeex wa abaayi naa bàyyil sax kaa ñu jël suñuy waajur yi ñoom ñëpp ñu dee yow nga des fi ndax sa dund moo ëpp njëriñ wa naa ak suñuy doom yëpp ñu njotale ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam non la abou Abubakar tontu parce que comprendre na li nga xamantene mom la wax ji làmb bokk na ci li nga xamantene daf lay wane ne sar bi dafa ñëw pour tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam annahu lamma zakara xusula nasri wal fathi ba nga xamante ne borom bi wax na ko ne dina ko dimbali dina ko ubbil makka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla wax na ko loolu wa duxula annaasi fi diini fi diini yàlla nee na ko itam ñun ñi dinañu dugg si diina ji ay mbooloo mbooloo di ñëw di dugg ginnaaw bu ñu doon ñëw kenn kenn yàlla wax na ko loolu loolu bi mu ko yàlla waxee loolu day tegtale ne ah ala husuudil kamaali wa tamaali ne ah comme de moom li mu nekkee woon di lislaam bi mat na matare na comme que yàlla dimbali na ko ibbil na ko màkka ginnaaw bi ko waa màkka génne màkka mu dem madina dafa fukki at yàlla dimbali ko ubbil ko màkka mu ñëwaat màkka yi yéeféer yi fa nekkoon yëpp ñu ci bëri tuub lislaam amaat fa doole bu loolu amee rek dafay wax dafay wane na ni mission bi ko yàlla joxoon mu koy jëfandikoo mission bi mat na kon lu mat bu matee rek war a jeex kon mission mat na kon bu fi toogee moom yonent bi te mission bi mat na dafay mel ni ku retraité xam ko ku retraité moom da ngay retraité do liggéey ji da ngay taw ñu lay fay sa pension mais yonent saa sallam bu mu diina ji matna al yawma akmaltu lakum dinakum yàlla wax na loolu wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan kon bu diine ji maté mom mu nekk fi kon amul sens day nekk ku retraité day mel day melni ko koo dañ ko folli te loolu daganul ci yonent saa sallam kon loolu bu maté rek dafa wara dem mu xamne bayil nañu lo xamante ni ñi nga xamante ñoy ñooy xeetam yi fekke won dundam ba jàpp suñuy jonni yàlla tey ba ñun bi ñu fi jegee ñii ñëw ëllëg l'islam bi mooy continuer parce que wax na ne taraktu fiikum amrayni maa ma tamassaktum fii lanta di lu yéen samay xeet maa ngi dem demee dinaa leen bàyyi ak ñaar yoo xamante ne feek yéen a ci sax jëfandikoo ko di ko di lu lanta lan tadillu doo leen mës réer abadan ñu ne ko yonent la mu ne bàyyil naa leen kitaaballahi وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بايلنا لين تما تيري بي موي القران اك سنة يونس صلى الله عليه وسلم لب لو ما دون جيفي جيفي ناخو نين غيس بيند نين كو لب لو ما واخون بيند نين كون باينا لك لولو te bo len ci tege sen tank lan da dilu kon lolou moy wanane sar bi da fay watane yunus sallallahu alaihi wasallam dañ ko tagge ben borom way xam xam benn waykat mu ne ida tamma amrun bada naqsuhu tawaqa zawalan ida qila tam ida tamma amrun bu dee mbir dem na ba mat li nga doon liggéey dem na ba mat motale na lépp mat na bada naqsuhu dafay tàmbali di wàññeeku dem ba mat rek léegi dootul yokku day wàññeeku rek wala mais li nga di ko jóor di jóor ba mu mat ba mu yegg ci plan fond bi mënul baas place fond bi day wàcc rek day wàññeeku rek loo fa teg day daanu ida tamma shay'un rek bada naqsuhu kon bu fekkente ne diina ji mat na yonent sallallahu alayhi wa mu ngi fi kon diina ji dafay wàññeeku ci présence am moo tax borom bi subhanahu wa taala jëlee ko fi mu ne tawaqa zawalan iza qila tam buñ la ne mat na rek jeex na xamal ne li si topp mooy dafay jeex day deñ li nga nekk woon day deñ wa minha bokk na ci lii te tele ne saar bi dafa ñëw pour wan pour tàggu yonent sallallahu annahu taala amarahu bis tasbihi walhamdi wal istighfaari yàlla digal na ko moom yonent salaa sallam nay sàbbaal nay sant yàlla nay jéggalu borom bi subhaanahu wa taala washtigaaluhu bi dalika yamna'uhu min istigaalihi bi amril ummati kon yàlla nee na ko deel sàbbaal sa boroom deel sant yàlla deel jéggalu yàlla wax na ko loolu kon léegi bu nekkee di jëfandikoo loolu kon mbiru xeet bi da koy da koy da da koy loolu da koy teree def mbiru xeet bi kon da fay wone ne yep, mbiram yépp matna bokk na ci suratu nasri fadluha fi hadith abi ubay ngëneel bokk na ci ubay solo na ci ben hadis ne man qaraaha kep ko xamantene ne na suratu idha jaa nasrullah fa ka annama shahida ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fath képp koo xamante ne jàng na saar bi muy surtout iza jaa nasrullahi dafay mel ni yow bi yàlla si borom subhanahu wa di dimbali yonente bi di ko ubbil yak yaag moom yéen fekke fekke nga ko doo ko jàngee benn yoon rek bokk na ci itam li solo an abdillahi radiyallahu anhu qaala man qara iza jaa nasrullahi wal fathu fii na wal fathi iza jaa nasrullahi wal fathu képp koo xamante ne jàng na ida jaa nasrullahi wal fathu fii naafilatin mu jàng ko ci naafila yu mu doon naafila aw fii faridatin wala mu jàng ko ci saar farata julli farata moo xam julli la wala julli farata mu jàng ci saaru ida jaa nasrullahi nasarahu llahu ala jamii aadaayihi moom mi jàng saar boobu yàlla dina ko dimbali ci bépp noonam képp koo xamante ne noonoo ko yàlla dina ko dimbali ndax saar bi nga xamante ne jàng na ko wa jaa yawmal qiyaamati moom mi jàng saar bi dina ñëw ba su penc ëllëg wa maahu kitaabun mu ngi ànd ak yore benn téere yantiqu téere bi di wax qad axrajahu llahu min jawfi qabrihi fekk téere bi téere bi génn ci biir bàmmeelam mook ba bi ñooy génnandoo ci biir bàmmeel fii nekk na ci téere bi amaanun min harri jahannam wa min annaari wa min zafiri jahannam téere bi da koy wax ne kii de am na garanti am na garanti boo xamante ne da koy tere dugg safara am na garanti boo xamante ne da koy dégg rek riir safara da koy dégg ci noppam rek mais du ci dugg ndax saar bi nga xamante ne moom la doon jàng loolu bokk ci ngëneeli suuratu nasri yàlla ngi ciy wax nag histoire fatxu makkata ubbee bi nga xamante ne yàlla ubbil na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makka nee na lii tax lii sabab fatxu makka am ndax fatxu makka azamu futuhil islaam yi l'islam victoire yi mu am yi ci gën a rëy fatxu makka ci la bokk وأعز الله به دينه يالا ترال نشي تدال نشي دينه دين الإسلام ورسوله وجنوده وهرمه يالا ترال ناشي الإسلام ترال تي يونتام دي محمد صلى الله عليه وسلم مترال تي إتم كونتيزان يونتام صلى الله عليه وسلم ني أندنا ورنك موم أك حرمه màkka itam lépp yàlla teral na ci lislaam bés boobu wastabshara ahlu samaa'i ñooñu asamaan bég nañ bés bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ubbil nañ ko ubbil na yonent bi salaa sallam màkka wa daxala annaasu fii diinillaahi afwaajan nit ñi dugg nañ ci diine yàlla ji mbooloo ji mbooloo yu bëree baree baree bëri groupe yu bëri ñëw nañ adhéré wu ci lislaam bés boobee bés fatu makka lii waral sax fatu makka annahu waqaa sulxu bil hudaybiyati bi nga xamante ne yonent bi saa sallam demoon na hudaybiya am na benn pacte xare la woon hudaybiya benn pacte boo xamante ne signé woon na ko moom yonent bi saa ak waa Quraysh xamante ne ci Quraysh la bokk ginnaaw bu ñu la nee ñoom ñoo ko xeex ba génne ko Makka mu dem diina mu am benn pacte boo xamante ne bind na ko signé na ko moom yenn saa salaam ak waa quraish ala annahu pacte bi mooy sallallahu alayhi wa sallam laa yataaradu liman daxala fii ak di Quraysh képp koo xamante ne ci waa quraish nga aju ñoom ngay jàppale moom yenn saa salaam du xeex ak yow jullit yi du ñu xeex ak yow. وأنهم لا يتعرضون لمن دخل في أقده وقريشيتم كيف كو خمانتني تي يرنتو صلى الله عليه وسلم لبوك جلد لنيو جم نيو صلى الله عليه وسلم وقريش دوني خيخ اك نيوم باكت بوب لنيو بند كيف كو خمانتني دفا فرق وقريش محمد دو خيخ اك نيوم كيف كو خمانتني دفا فرق يرنتو صلى الله عليه وسلم وقريش دوني خيخ اك نيوم pact bobu lañ bind signé ko digënté rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak waa Quraysh te bokkon nañu ci ñi duggoon ci pact yonent sallallahu alayhi wasallam bani nii ngir bu ñuy wax xudaa ñom ci yonent sallallahu alayhi wasallam lañ foron wa fi aqdihim banu bakrin ngir bu ñuy wax banu bakrin ñom ci wa Quraysh lañ bokk banu xuzaata ci yonente bi salaa sallam la bokk banu bakrin ñoom bokk ci waa quraysh waaye nag wakaana muta aadayn ñaari ngir yooyu dañoo noono woon neexoowuñu waa xuzaata ak waa banu bakrin neexoowuñu du ñu jaaroo taal ñii for ci waa quraysh ñii for ci yonente bi sallallahu alayhi fa xaraja baadu bani bakrin ñenn ci waa banu bakrin ñi far ak waa quraish génn wa banu xuzaata ak ñenn ci ñi bokk banu xuzaata ñu génn faktatalu am lu dox seen diggante ñuy xeex ñoom ñaari xeet yooyu ñaari ngir yooyu di xeex fa amadat qurayshun bani bakrin waa quraish foral ñi nga xamante ne ñoom ñoo dugg seen pacte mooy waa banu bakrin ñu foral ñooñu dugg ci xeex bi te su ñëwoon nañ pacte kenn du laal moroom keneen ki ñaari ñaari ngir ñi mën nañ xeex mais waa Quraysh du faral ñeneen ñi waa yonent bi sallallahu alayhi faral ñi ñu àndal gis nga waa Quraysh ñoom ñoo violé pacte bi ndax ñoom ñoo dugg ci xeex bi te waruñ ci woon dugg nañ bàyyi ñaar ñi rek di jote ku mën sa morom duma waaye ñoom ñu faral ñi bokk ci ñoom fa xaraja arbauna min xuzaata إليه صلى الله عليه وسلم وابني خذات ني بوك تي باكت صلى الله عليه وسلم نين سي نيوم ديم تي صلى الله عليه وسلم تاوات كو واخ كو لي خيو سين ديغنتي كا وا خذات اك وا بنو بكرين ني وا قريش نيوي توتال لين ني واخ كو يوند صلى الله عليه وسلم نيكوي ديمبلي نيكو نيان ديمبل مو ديمبل لين داخ ني نين لين سوتي دا فا متي فقام موم يوند صلى الله عليه وسلم مو جوك تاخو بين كو واخه لو رك مو جوك وهو يجر رضاءه قارم دفا ود صاح موي ديري كالاغي موم يوند صلى الله عليه وسلم ويقول موي وخني لا نصرت الا لم انصركم بوما لين ديمبالي وول يين وا بني خزاعه تي توغ لي لين قريش توغ سوما لين ديمبالي وول يالا بوما يالا ديمبالي موم يوند صلى الله عليه وسلم موي لول فلما احس ابو سفيان بيغا خامتاني ابو سفيان دغنا لي خيو waa Quraysh dimbal nañ ba banu bakrin dal si kaw waa banu xusaata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni jóg ne dana leen di sotle dana leen dimbali Abu Sufyaan yéefar la woon jamono jooju tuubul woon mu yëg loolu jaa ilal madinati mu jóge Makka ñëw Madina li jaddidal ahda pour mu beesalaat li nga xamante ne mooy pacte bi ñu defoon mu beesalaat ko ak diire bi ñu mayeen sallallahu alayhi wa sallam pour ne bu mu ñëw màkka ñu bëgg mu ñaan pour ñu yokkal ko diire boobu bi mu ñëwee moom abu abu sufiyaan yenn bi sallallahu alayhi ko sax bañ faraja fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annaasa bil jihaadi yenn bi sallallahu alayhi wa sallam digal nit ñi ne leen préparé wu leen dañuy dem préparé wu leen ne ku nekk préparé wu ndax dañuy dem xare dañuy dem xeex ak waa Quraysh ndax ñoom ñoo ñu tooñ ñoom ñoo violé pacte bi nga xamante ne signé woon nañ ko ñun ak ñun ak ñoom wa amara ahlahu an yujahizuhu moom yenn salaa sallam mu ne waa këram nañ ko préparer ay bagages am yépp ñu waajal ko ndax dafay dem mission wa aalama annaasa annahu sairun ila makkata moom yenn salaa sallam mu yëgal nit ñi ne ah xam leen ne damay dem makka maa ngi dem makka damay dem dimbali waa ba ñuy xuzaata ngir tooñ gileen leen waa Quraysh tooñ ginnaaw bi ñu doon joteeg waa banu bakrin wa qaala allahuma xudil uyuuna wal axbaara an qurayshin xatta nabxataha fi bilaadiha mu ñaan moom yonent bi salaa sallam ne yow yàlla jàppal ma seeni gët bu ñu yëg dara ci li nga xamante ne maa ngi koy def ba ma dal seen kaw ñoom waa makka fa tahajjaza ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم آمدا إلى مكة لعشر مدينة من رمضان نيت ني تام بو يوند صلى الله عليه وسلم داي ديم كاي كين دو ديس نيب جوك اندك يوند صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ديم نيت ني اندك موم موغي دون موغي تومبيك فوكي فان تي ويرو كور وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنا فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والناس معه مام دا فا وورون مام يونس صلى الله عليه وسلم ني اندون اك مام ايتام دانيو وورون بس بوبي بيم نيي با بير بيني واخ كديد فلا يونس صلى الله عليه وسلم دوغي كورم مونغي اندك نك بس بوبي فكي جوني نيت لا اندون مام يونس صلى الله عليه وسلم min al muhajirina wal ansar ñi nga xamante ne ñooy muhajirina ñi jóge woon Makka gàddaay ñëw Madina ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon Madina yéen bi sallallahu alayhi wasallam fekk leen foofu ñu gëm yàlla ñoom ñëpp bi ñu àndandoowee di dem Makka fatxu Makka dix mille personnes lañ asratu alaaf dix mille personnes hmm, ndeysaan kenn ci waa muhaajiriin ak waa ansaar wuutewul ba si boobu fa lamma nazala bihim amarahum an yuqidu asra alaafi naarin kullu naarin ala xiddatin moom borom bi subaa moom yonent salaa mu ñëw digal ne kenn ku ne ci yéen na taal safara kenn ku nekk na taal safara dix mille bu kenn ku nekk taalee safara dix safara lay doon pour ñiñ pour waa Makka xam ne lii nga xamante ne moom la yonent saa sallam indi mënuñu résister ak ci loolu fa abu sufyaan ibnu lxarbi wa xakim ibnu abu sufyaan ak ñaar ñi ma ak ak ak xakim ak badil génn di dem di xool ndax dinañ dégg information bi jóge ci yonent bi sallallahu wa kaana al abbaasu ibnu abdul mutalib لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطرق مهاجرا بعياله فلما رأى ذلك الأمر قال والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه لهلكت قريش إلى آخر الدهر عباس بن nga xamante صلى الله عليه وسلم salaa salaam ànd ak nit ñi di dem mu xam ne ah, ñu préparé wu yonent salaa sallam bettee leen nii ah bu de Quraysh dina ba adduna jeex du baaxaat fa qaala al abbaasu sallallahu alayhi wa sallam al baydaa wa xarajtu li li ajida xataaban aw za xaajatin yadxulu maqa fa yuxbiruhum bi makaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li yaxruju ilayhi wa yastaaminuhu qabla an abbas war baax la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baax la daaba boo xamante ni mu ëpp mbaam waaye tolliwul fas mooy baax la abbas baax la boobu la war dem génn ci dem ci àll bi ngir mu gis koo xamante ni dafa ñëw pour taxañ si wala ku amoon soxla si si àll bi bu ko gisee te fekk Makka la jëm mu wax ko ne ah yëg leen ni Muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi ñëw ndax li mu ñëw nii andi na doole boo xamante ne kenn ci yéen attanu ko dem leen ngeen ñëw ci moom ngeen ñaan ko mu dimbali leen ngeen ñaan ko ndimbal balaa muy dal ci seen kaw wa ida ana bi abi sufyaan bi ma génnee di dem rek ma dajeek abu sufyaan abbas ay wax de ma dajeek abu sufyaan فعرفت صوته ما خم ما دغ باتام رك خامن ابو سفيان لا منكو يا ابو الحنزله نون لنج كو دون داكانتالي فعرف صوتي موم مخمي سما بات ني ابو الفضل قلت نعم منكو اها من لاكاي من لا عباس عباس مو ابو سفيان خمال ني غيس nga سفر ييغا غيس سفر ييغا غيس ني ني تال صلى الله عليه وسلم موم موي ñëw na andi na contingent boo xamante ne kenn ci yéen kenn ci yéen amul kattan dékku li nga xamante ne moom la yéen sallallahu alayhi wasallam andi kaay ñu dem bu ñu demee ci yéen sallallahu alayhi wasallam man ma garanti la kenn du la def dara ma garanti la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu muccal la Abbas warloo ko ci kaw bax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy wërloo contingent bi di ko wërloo contingent yi di ko wërloo contingent yi ba mu ñëw ci place bi nga xamante ne fa la Seydina Omar toog mu ne ah kii di Abbas la mais am na ku mu war ku war ci ginnaawam bi mu ñëwee moom say Omar mu gis ne Abu Sufyaan la mu ne Abu Sufyaan kii Abu Sufyaan la yaa Aba Sufyaan addu wallahi yow noonu yàlla bi yow yaa nekk fii yaa ñëw fii Seydina Omar ne الحمد لله الذي amkana minka bi xayri aklin wala ahadin maa ngi sant yàlla de bi ma dimbalee maa ngi yow ñu daje fekk benn pacte amul benn si ñu ñu benn pacte kenn du rey keneen tey ma tegal taxale sa bopp ak sa baat Seydina Omar loolu la wax mu génn dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abbas ne ma gaawantu ak maag sama baax la ma ma ma njëkk Omar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne yegsi nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam omar ñëw omar ne yow yonent bi sallallahu alayhi kii de abu sufyaan la noonu yàlla bi yàlla dimbali nañu daal ba ñëw na fii si ñun amuñu benn pacte ak benn dara lu ñu si ñanteeg moom bàyyil ma rendi ko ne ah yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax la la ci yonent bi sallallahu ni abu taalib abdul muta aba lahabin bi ñu jàngoon keroog nekkee woon bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la abbas nekkee bàyyi ci yéen sallallahu alayhi wasallam abbas ne yow yonante bi sallallahu alayhi wasallam ah kii de bàyyi ko man maa ko garanti maa ko garanti bu ko kenn laal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw kon abbas jël ko nga yóbbu ko fi nga xamante ne fa nga nekk ba suba nga andi ko ba nga xamante ne bés tët na abbas ñëw ànd ak abu sufiyaan abu sufiyaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa aba sufiyaan alam yaani laka an taalama anna allaha la ilaha illa hu te Abu Sufyaan ba tey jii nii mënoo xam ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul yàlla ba tey jii nii xamuloo loolu Abu Sufyaan tontu ko xoolal lool rek yenn salaa salaam bi mu xëyee rek amul lu mu ko lu ne yow Abu Sufyaan ndax jotul ndax il n'est pas temps nga gëm ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul yàlla bi ko yonent salaa salaam loolu moom Abu mu tontu. bu ne maa ngi giñ ci sama baay ak sama ndey noonu lañ doon ngi moom ci jaahiliya mësuma gis ku gën a ku am ku gën a baax rasulillah gisuma ku gën a tedd rasulillah gisuma ku gën a mën a muñ rasulillah Abu Sufyaan wax lii ndax bu doon keneen nag gëmoo yàlla gëmoo yenn salaa sallam ñu andi la rek day automatiquement ni Seydina Omar wax day teg day jël jël sëmmiñam rek dindi sa bopp dindi sa baat teg ko fële bopp bi lay dindi teg fële nga de ñu rey la waaye yéen salaa salaam da ne ndax doj jotul nga gëm yàlla yéen salaa salaam dañul di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba mu gëm dugg lislaam moom Abaa Sufyaan Abbas ne ko yow yonente bi salaa sallam xamal ne rek Abaa Sufyaan nit la koo xamante ne ko xaw a rëy la di bëgg nga defal ko benn faveur nga defal ko faveur ndax nit la koo xamante ne ku gis boppam la rasul sallallahu alayhi wasallam ne ko na dem képp koo xamante ne ci waa Makka ñi gëmul ku dugg biir këram moom am na kóolute am na sécurité kenn du ko laal ci gàttal Abu Sufyaan ñibbi yéen sallallahu alayhi mu ngi ñëw Abu Sufyaan woo waa Makka ne xam leen di yenn sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñëw dal ubbi ubbi dal ci waa Makka tey amul kenn koo xamante ne mënul mucc képp koo xamante ne dugg na sama kër mucc na yonent bi neen sallallahu alayhi wasallam képp ku dugg biir kaaba tëj këram dugg biir këram mucc na duñ ko def dara kenn du ko laal yéen sallallahu alayhi wasallam ñëw ci gàttal ñu ubbil ko kaaba gi fekk biir kaaba gi am na trois cent soixante sanam trois cent soixante xërëm mu ngi woon ci biir kaaba gi yeneen sallallahu alayhi wasallam ñettam bi la jël di jàng qul jaa al xaqu wa zahaqa al batilu inna al batila kaana zahuqa xërëm yi di daanu 360 xërëm yëpp daanu ci bés boobu ñu génne leen yenn salaa sallam jéggal waa Makka jéggal waa Quraysh ñoom ñëpp ne leen yéen ñëpp jéggal nañ leen ci dañoo tënk xissa bi ndax du xëj si xam si waxtu wi borom bi muy wax ginnaaw bu ñu waxee suuratu nasri la tudd muy suuratu izaa jaa nasrullahi madaniyatun madina la wàcc wa hiya salaasu aayaatin ñetti aaya dong la saar bi am ginnaaw auzu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim borom bee ngi wax ne izaa jaa bu dee dikk na izaa zarfun lima yustaqbalu min azzamaan bu dee ñëwi na izaa lii ñëw lay wax bu dee lii passé is lay doon is zarfun mada min az-zaman waaye bi bu dee ñëw na isa zarfun li ma yustaqbalu min az-zaman isa jaa bu dee dikk na nasrullahi ndimbalug yàlla ñëw na ci yonentaam bi sallallahu alayhi wa sallam isa jaa nasrullahi nasru masdarun mudaafun li faa'ilihi day am maf'ul maf'ul bi ñu effacé ko mooy nabiyahu moom la saa moom la moom la mufassir bi wax ne nabiyahu idaa jaa bu dee dikk na nasrullahi ndimbalu yàlla ñëw ci yonentaam bi ñuy wax muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dimbali ko ala aada ci noonam yi bu dee yow muhammad gis nga yàlla dimbali na say noon wal fatxu yàlla defal la fatxu makka nga gis ñu ubbil la makka mooy xissa bi nga xamante ne wax nañ ko ci gàttal wara ayta naasa nga gis nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diinillaahi ñuy dugg ci diina yàlla ji di lislaam ñuy fay dugg afwaajan mbooloo ñuy dugg ci lislaam mbooloo di ñëw mbooloo di ñëw di dugg ci lislaam baadama kaana yadxulu fiiha waaxidun waaxidun kenn kenn moo doon ñëw tey nga gis ñaar ñett ñeent nga ñëw groupe di ñëw di dugg ci lislaam boo gisee loolu yow muhammad فسبح نغا سبال بحمد ربك bi hamdi rabbika nga taxoo di sant sa borom subhanahu wa taala boo gisee loolu am rek bu dee yàlla dimbali na say noon ñu ubbil la màkka nga gis ay mbooloo ci mbooloo ay groupe di ñëw di dugg ci lislaam nga gis loolu ginnaaw bu kenn kenn rek moo doon ñëw di gëm yàlla léegi nga gis mbooloo ñëw di dugg ci lislaam fa sabbih bi hamdi rabbika loolu mooy jawaab isa bi فصبح موي جواب ده إذا دا فاي أم جواب فصبح صبال بحمد ربك دي تدو سبورم دي سنت سبورم واستغفره سكول تي بروم بي مو جيغل له واستغفره جيغلول سبورم يا محمد انه نقم بروم بي كان مسول دين kaana mësul dañ nga koy firee bu dee ci yàlla la ndax kaana nekkoon na lay firi kaana nekkoon na kaana zeydun aaliman zeydu nekkoon na boroom xam-xam mën na bañati nekk boroom xam-xam kaana abdullahi ganiyan abdullahi nekkoon na di am am alal mën na ñàkk kon nekk kaana nekkoon na mën a deñ mais bu dee ci borom subhanahu wa taala du deñ kaana boobu doo ko boo koy firi doo ko nen yàlla nekkoon na yàlla nekkoon na di jéggale léegi jéggaletul ah, du noonu nga firi kaana mësul deñ kaana daaha lam yazal kathira kaana mësul deñ yàlla mësul deñ tawaaban di nangu tuub yàlla moom saa yoo jéggaloo rek mu jéggal ayoo ah, jéggalu rek borom subhanahu wa taala mu jéggal la ginnaaw ba nga xamante ne charte yi tuub def nga ko mooy an nadamu ala ma faata rëccu nga li nga xamante ne bàkkaar nga doon def gon niyatu allah yauda ila zanni fi ma fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al maasiyata hmm? na ko lax da di jàngale yaa ngi dégg rëccu nga bàkkaar bi boo ko xalaatee sax mu metti la dugal nga ci sa bopp ne yow sa yéene nga fas nga fas nga sa xol ne bàkkaar bii ma def dootuma ci dellu ba sama lii des sama dund nga bàyyi nag mooy ki nga doon def donte ne fi nga tuubee yaa ngi doon def bàkkaar nga bàyyi ko nga yéene ne yow lii des sa dund dootoo ko defati boo ko defee rek boo jéggaloo borom bi subhanahu wa taala jéggal la ndax innahu kaana tawwaaba yàlla mësul deñ di nangu tuub lenn la borom bi dul dul dul nangu dul jéggale mooy bokkaale إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك nga bokkaale ko lenn loola dul jéggale waaye lu dul loolu borom subhanahu wa taala da koy jéggale ginnaaw bi nga xamante ne saar bi wàcc na borom bi ne ko fa sabbi bi hamdi rabbika wastaghfirhu moom sol yonent bi salaa sallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayh bi saar bi wàccee yenn salaa sallam fu mu toog daa iman dafay toog naan subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi tudd naa seetlu borom bi maa ngi koy sant di ko jéggalu maa ngi tuub wa alima mu xam ne moom borom bi subhaanahu wa moom yonent moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qad iqtaraba ajaluhu mu xam ne digam bi ko yàlla joxoon mat na kon saar baa ngoog tasbihi ndëkk subhaanallah salatu ala nabi yeneen ak yeneen yi ngay def bo bëggee mu am njariñ da ngay fekk nga teg sa tànk si diine diin arkanul islam al alxams da fekk nga nekk ci nga seede na amul benn bor benn borom bu ñuy jaamu ku dul yàlla ngay saxal julli di joxe asaka boo ko amee di di woor weeru koor bu ñëwee aj màkka boo ko amee ginnaaw bi cinq pliers yi lislaam yi yaa ngi koy matale boo booy istigfaar wala booy tudd yàlla wala booy def laa ilaha illallah booy julli ci yéen salaa sallam mu am njëriñ mais bu dee arkaanul islaam yi doo ko def bi ci gën a rëy mooy julli doo ko def bu la neexee nga sàbbaal un fois du am njëriñ sadaqallaahu alazim saar baa nga yàlla na yàlla defal dégg ak topp lépp lu si jub ci yàlla la lépp loo xamante ne dëng na ci suñu gàtt fa suñu gàtt xam-xam la ak suñu néew fasaaxa ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla fajal ñu suñu aaju yëpp ci biir ak ci biir يالن يالن ما ينفك أجمع بيرن إن شاء الله تعالى إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر